alors Thierno dafa am bu gars yi tàmbali fan yi euh, ça ne m'a pas surpris que ce soit des gens du du du, du régime ça ne m'a pas offusqué et puis j'ai été rassuré par les sorties de de Abdou Karim Fofana de Ismaïla Madior Fall et puis euh, xam naa ne sax gars yi seen fukki xel xalaatul ñu naan dañuy reporter la présidentielle mais dama commencé am jaaxle quand j'entends des opposants euh, défendre l'idée d'un report euh, de la de la présidentielle Euh, est-ce qu'on est dans une situation socio-politique socio-économique bu mën a sax euh, autoriser ce débat-là à s'installer dans dans dans l'espace public. xam nga ñu koy wax euh, dañ bu ñu waxee pyromane maanaam ñu bëgga a taal daay ñoo koy wax parce que d'abord gisuma ban porox ndoll juridique la ñu mën a sukkandiku pour ne dañuy reporter élection. constitutionnellement il y en déjà donc dañu wax coup d'état te jàpp naa ni ñoom gars yi fi nekk aw <laughs> di di attaquer Niger teg ko yu garaaw ndax nee nañu dañu jalgati constitution di ñoom ñooy nee nañu jalgati constitution Sénégal benn ñaar gisuma lu fi xew ci diggante gi ki ma ko njëkk a déggee dafa ne ci na ma ko déggee <laughs> ñoom seen candidat pouvoir bi jàllagul maanaam jaxagul daal amagul benn buzz bi donc euh, war na yëngatu euh, waxul ni moo tax mais euh, amaanam war na bokk ñu lu tax mais c'est très dangereux élection présidentielle dafa war a tenir à date amul benn benn pexe bu ñu war a mën a ak prondool bu ñu war a mën a jaar pour ni dañuy repousser élection présidentielle lu muy dañu bëgg a taar réew mi wax jeunesse bi nii li ñu leen daan wax lépp dëgg la amul justice amul yoon jalgati yoon saa yu leen neexee lañ koy def bu leen arrangé ñu soppi loi bi bu leen neexee ñu ne diw mënul bokk parce que loi bi moo ko tere euh, mënuñu ko jox ay parrainage mais mën nañu changer constitution mooy lan mais c'est très grave et ça montre man je je pense pas que mu nekk au plus haut sommet de l'État parce que gis nga ba ñu nekkee opposition wax yooyu déggoon nañ ko xaw ndax. à l'époque à xaw ma ndax foog ma ni demoon na ci ba ci président Wade mais am na ñu doon wax ni mu ngi ci doon discuter ak ñenn am nay gaaw société civile yu ci ne woon demoo Wassanjo. am na ñenn ah. am na am na am nañu pré opposition société civile yi ñu ne woon dem woowi Obasanjo pour jouer aux intermédiaires am na ci opposition bi ñu ci ne woon parce que xamoon nañu de toute façon élection yi ñoom c'est perdu pour eux. ndax ñun dañu nar ñàkk élection yi ñun ñun dañu nar a ñàkk jongante bi nañu taal réew mi wala nañ jël ay décisions yu nara a taal réew mi def ja euh, à l'époque jàpp naa ni ñu ko doon défendre ci camp Wade ñu ma ko déggoon ñu koy def bëgguma tudd ay tour en général moo tax du bañ a kii quoi bëgguma tudd ay tour dañoo ñu ñu gënoon doy waar la ci camp boobu heureusement am na ci ñoo xam ne donte xamoon nañu boo moytu dinañu perte. nee ñu nañu avancer parce que tamit réew dafa am loo xam ne dañ koy jomm dafa am loo xam ne da ngay nekk gentleman doo jéem a ñedd bool doo jéem a kii parce que loolu mooy indi coup d'état yi coup d'état militaire foo ko gis bu fekkee ne dem nañu ba ñu xam ne civil yi ñoom lu leen neex la ñuy def coup d'état permanent la ñuy def ah, sur la constitution amatul yoon amatul justice lu yoon tere comme kii warul cumul de fonction dañ koy def ku yoon tëj nga bàyyi ko yoon tëjul nga jàpp ko bu ñu demee ba militaires yi toll foofu attention ce qui se passe dans la société là sa ça se discute dans les dans les rangs et moi je trouve que c'est une idée extrêmement dangereuse ñu koy agiter très très très dangereuse faut qu'ils arrêtent et que ils reconsidèrent et, et d'ailleurs ils s'amusent à ça depuis les législatives nañu reporter législatives yi pour lan parce que am na ay listes yoo xam ne naru ñu bokk te liste yooyu waruñu mun a bokk te liste yooyu ñoom ñoo génn dàq seen bopp kenn dàqu leen parce que ñoom ñoo dëppoowul ak li yoon tëral la loi est dure mais c'est la loi am déet non y a y de la société civile sax bu ne non euh, nañu teg lépp ci suuf bàyyi ñëpp ñu bokk mu mel ne léegi Sénégal genre démocratie combine lañ ko euh, lañ ko lañ ko lañ ko bëgg a def entre copains c'est-à-dire combine parce que une liste qui est exclue nga ne non nañu gëmmu bët bàyyi ñëpp euh, euh, euh, jongante pour la paix une élection ñu ne non mënul nekk y a des dans le pays nañ ko reporter <laughs> lan lan lan la ñuy xaar aujourd'hui ci ñoom et le plus grave c'est que xam nga c'est pourquoi man parfois débat politique sénégalais bi pour pour rester un peu pour me préserver rester un peu intact je m'en parce que pas sur le conseil constitutionnel les gens vont aller euh, à à tort ou wax ci le président du conseil le nangam na mais conseil constitutionnel bi jàll nii <laughs> conseil constitutionnel bi jàll nii. mooy nomination bu bees bi. non bi jàll en bu arbitre woon élection deux mille vingt deux yi. conseil boobu moom moo validé ay moitié wu loo xam ne ba ñu élection législative locale 2014 cour suprême beneen position bu leer la ci amoon bu contre ñu ñi liste proportionnelle mun na jàll mais list Euh, liste majoritaire mun na jàll non euh, liste des way titulaire mun na jàll waaye liste suppléant munul jàll fii list suppléant mun na jàll waaye liste majoritaire munul jàll fexe ba créer ñaari liste ci benn liste du conseil constitutionnel bi génn nii la ñu moo ko def am mhm. déet waaw ah. mais donc bu ñu ci changé ak benn nit wala ñaari déet lan la mën a changé ci conseil constitutionnel boo xam ne <laughs> il a pu nous prendre une liste boo xam ne article j'ai oublié l'article du code électoral la dafa ne la liste est composée indissociable normalement la liste est indivisible ah. elle est indissociable elle ne peut pas la séparer conseil constitutionnel séparé ko donc bu ci changé benn man je trouve que le débat est factice c'est, débat devrait être que naka la ñuy fexe ba bu ñu jëlee bu point pouvoir bu bees yu amee lu ñu dab ci Macky Sall mu promettroon signé woon charte assise nationale signé lépp ñu ñu bañ a def régression encore mu ñu amaat un vrai conseil constitutionnel mais ñu ñu changé ci kenn wala ñaar dafa mën a changé li nga xam ne. moom mooy les règles du jeu. ñëpp ñëpp non ñëpp fekk nañu 2022 laa wax mooy règle du jeu yi ñu bafee ko jël benn liste di génne kii kii lu gën a graaw mooy liste dakaar bi tout le monde sait qu'elle était euh, non paritaire et d'office écarté loolu lañ def de 2000 depuis que la le, le la parité a été in... Euh, bon, mais depuis que la loi sur la parité a été booba liste bu mës a demee noonu dañ ko la écarté d'office et dont le, le, le plus célèbre cas c'était la liste de de de de de Saliou Mbaye à am déet hmm? ñu ñu ñu fexe ne leen non comme ñu ñu ñu nañ bëgg a changer leen nangu mais le les gens vu ñu fanaan 48 heures à la DGE di def lu leen neex donc gis nga Sénégal 48 heures gars yi toog di bind seen i liste gis nga Sénégal dama jàpp ni dañ dañu toll foo xam ne dañu bëgg nii am na ñoo xam ne lu ñu def dagan na c'est pas que le pouvoir rek ce qu'il fait est illégal mais on peut même faire de l'illégalité pour contre pour contrer le pouvoir il plus de trois donc dans dans ce cas est-ce que yaa may yaa ngi comprendre li mu ko et c'est ça qui est grave c'est-à-dire c'est arrivé que des membres de la société civile des des universitaires des des d'autres puissent accepter que ñu ne loi bi amatul solo règles yi amatuñ solo nañu def ab benn. ñaaru combine combine nañu déggoo. nañu déggoo. Ah. pour mun a ku ci nekk mun a li nga bëgg nga mën ko am. loolu bu ñu ko defee mooy amatul état de droit. te waruñu wax Niger dara.